plaisir de vous retrouver sur différentes plateformes digitales yi fi nekk yëpp ce soir on a un entretien spécial mais avant entretien spécial bi dañuy wax que ni Pape Diouf moom moo fi am euh, balance boo xam ñu ngi koy waat soirée bi waaj a def demain incha allah le rendez-vous nag wala ce qui fait le buzz sur la toile moom mooy Ahmed Cheikh Ahmed Cissé moom la ñu parrainé bés bi il s'est permis jënd plus de 1 million su ma jumul ci ay billets pour ñëw bégal ay soppeem mais aussi pour ñëw bu baax ci le fait nga invité presse bi yëpp wax ji nag li ci rafet moom mooy presse bi ñëw leen je vais prendre en charge loolu tax taxul presse bi ñëw waaye li ci am solo daal moom mooy yëg-yëg maa ngi lay nga nuyu ñu lay ngi lay fay di am kontante teew fi bi ma jógee prison dafa am message bu am solo bu ma waxoon ma ne dañuy wax ne site internet yi ñoo ko dugal ñoo ko dugal ma ne leen non man ak yéen ñoo far man yéen laa bëgg su fekkee ne teew ci yéen joxe kàddu pour askan wi moo may yóbbu kaso. kon du ma fa jóg te ku xam press da nga koy fonk parce que dafa am importance bu mu am yàlla ci boppam sax am na presse. yàlla dafa am presse Jibril mooy moo jiite presse bi moo daan indi mission bi. Hmm. Eh, risala bi xibaar yi donc yéen yéenay jox nit ñi xibaar donc ku leen xamul rek moo leen di moo leen di jox cër benn ñaareel ba da nga su am tuuti xaalis rek ubbi site di lekk xaalis mais yéen ñiy sonn di dugg ci terrain bi di wax ak ñun. Euh, du ngeen ci am loolu te bu fët amee yéen la ñuy saaga ndey donc moo tax man xam bu ma xam média moo tax ma bëgg leen donc suba dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ni ma amee sumay gan mooy xale yu jigéen ñi noonu ngeen doonee suma gan lekk suur naan man di baal mu jeex quoi waaw maag presse moom euh, ñoo bokk di la fay nuyoo di nuyu ñëpp di nuyu waa référence mooy site bu mag bi xew jamono bi. di nga tudd Univers Info. tudd Africa Press 24 tudd tudd tudd Tako TV tudd live mais univers moom univers moom référence actu non non si xamet xam la laay bañ propagande laay bañ wala ngay am ñoo ñooy faral fii site bii nga yi nga gis nii ma tey nii ñëpp ñii ñëpp samay DG lañ dëgg la te man am na fu ma ne ñu may fay salaire kon nag yemaleen tuddal ñëpp non li ma bëgg a wax mooy univers moom ki ko moom man kooku laa moom univers maa ko moom man mii toog ak yow maa moom ki ko moom waaw donc di nuyu ñëpp di am kontante ndaxte bis bu rëy lay doon suba incha allah lu nit musul gis dina fi xew. d'accord ban la mooy sa diggante ak Pape Diouf parce que euh, c'est une première ñu gis la yow nga engagé wu jël lu toll ay millions jënd ko ay billets artistes nekk Sénégal bëri nañ yaa naa am gogo mais Pape Diouf lañ gis nga nga tippoo ak ak moom lan la lim la woy la wala ngeen am relation or bi. su ma diggante ak Pape Diouf mbëggeel la bi bi bi ñuy def cassette. Mhm. ci laa doon jënd Pape Diouf. Mhm. you di màgg loolu am na relation mbëggeel bu neex boo xam ne ci kaas-kaas bi la xewee woon waaw xale bu jigéen bi dafa bëgg kaas-kaas ma dem jënd kaset may ko ko mu neex ko ñu xaritoo ba nobant donc <laughs> loolu daf may marqué toujours quoi beneen bi dafa wëy yaay wëy bi neexoon suma yaay mbëggeel la daal mbëggeel waaye man ma ñëw Pape Diouf fecc taxut maa ñëw man su ma bëggee fecc mën naa fecc suma kër. ñu naan Ameth waaw wëy bu neex. taxul ma ñëw parce am naa géwél juddu yu ma gën a xam Pape Diouf li tax ma ñëw mooy man dama ko bëgg te moom daf ma bëgg daf ma yëg man xaw ma nu nit mel ak lu mu am fi nga ma def loolu laa xam moo tax di nga gis mu ànd ak ko ñàkk fay da nga doya daal ko fekk fi ma teg moo ma gënal donc su ma digganteeg Pape mbëggeel la moo waral lii lii commencement la rek mais xëj na bés dina ñëw ma fay génération consciente yëpp kase teg leen stade wala arena kenn du fay. Ah waaw lekk yi sax kenn du ko fay. loolu events lay doon de. loolu loolu foog naa ne dina ko mun di def ñaari yoon ci at bi Gambie ak Sénégal lu ma bëgg la pour Pape Diouf. Mhm. fekk mu ngi woy maa ngi fi. ci li ma bëgg yàlla nag mooy dogal. waaw yàlla mën naa def sama ñàkk bay ñaani yàlla mën naa def suba ñu tàqale ko mais li ma bëgg man. Mhm. mooy di jox Pape Diouf askan wi te gën koo booleeg askan wi. nit nag sañ naa wax li mu bëgg. d'accord une date que tout le monde se prépare moom mooy Pape Diouf dafay dem euh, Diamniadio ci bu mag ba. yow tant que sëriñam en tant que xaritam est-ce que am nga loo ko ciy conseil loolu dafa sori subaa xew gis nga bu subaa. Mm. mooy wane ndax loolu mën na nekk. xam nga damay ànd ak soixante quinze jonga ma presse bi topp ma ñoom suma xarit leen dama leen bëgg. motaar yeeg wii wii drone yi di <laughs> naaw soixante quinze ans te daf koy ëpp. Eh. parce que moom moom mii rek jongama yi ànd ak moom dafa bari jéeli jongama yi ànd ak moom am na ñu jugee Europe du caaxaan de bi man nekkuma ci nit ñi nekk. maa ngi waat ci yàlla nit jugee na Brésil nit jugee na France juste pour lii te xawma ma leen ñu ne ndax den ma bëgg xamuñ nuñ may teralee ñu gis na bés bi ñor na ma ñu ñëw am ñu jugee Gambie ma dalal leen loolu am na donc chaque jour charge lay doon du fere bi mais acte bi xoolal lii rek opérés bi rek ñu ñëw dama am seen fay dafa sedd xaw ma fan ngeen jugee am na ñoo xam ne tey laa leen door a gis mais lii mooy li rëy ci àddina mais man awma alal mais dama tabe awma xaalis mais xam naa teraanga waaw donc euh, suba la ñuy xam ndax arena mën na nekk beneen bi arena la 15 anniversaire Pape Diouf la xaw ma arena ñaata nit lay jël mais man 1000 lay jël. 1000 billets ngay jëndee waaw incha allah. avant tout. Mhm. d' euh, nga wax ñu tamit ci euh, li nga xam ni moom moo di ñëwaat bi nga ñëwaat ci toile bi defaat sa ay live produits yi ngay jaay. ñu gis ni indiwaat nga ci ay yeneen produit di ko jaay ñu bëri nag ñu ngi naan produit yu baaxut mais yow yaa ngi jaay waaw maam jaay na ne mu jaay mais yow moom yaa ngi jaay li ngay jaay Ahmed est-ce que c'est ak c'est authentique est-ce que baax xam nga tey euh, man déggaguma ku ne baaxul damay dégg ne na oddu kàddu yi ñi naan amu ci sutura mais baaxul moom déggaguma ko parce que euh, am na comme ñu ma doon tendance yenn sëriñ dem ci ñoom Ndoye Bane. mais keroog la affaire bi sa gën a def exploit donc xamuñ fu ñu may jaar ñu bëri dañuy jël nekk nekk détail ma di leen jox grossiste ñuy changer tur yooyu ñii naan di nga am alal wala nga am yeneen entreprise wala yeneen liggéey parce que dañu sa alal nit ñi ñu koy laaj produit rek lay jaay comment ça se fait nga mën a jënd daa bu am non démb rek jënd naa cristal ba mu fees pour démb gis cristal boîte boobu tudd cristal ah. xam nga waaw ah, Villa Cristal. Villa Cristal Villa Cristal waaw. ba mu jël billet yëpp VIP yëpp ñun ñëpp dañu dem dugg Villa Cristal. mais Ameth da nga am benn liggéey boo liggéey. non garabu koy dafa dox yow. Ah, am na bàyyi li ngay am na bàyyi si ñëwee def non mais dafa dox xam nga problème bi mooy. imagineel ñoo ñu gën air ñoo ñu gën dëkkuwaay everything ñu ngi jaay. non maa ngi ñëw dama ne Amérique bi ñu gën. dëkkuwaay gouvernement lépp Amérique moo ñu ko gën dañuy jaay 500 millions Saudi Arabie Viagra moo ko gën a dox donc adduna yëpp la du Sénégal man Sénégal bi ma nekk di fi jaay li may jaay di par rapport ak ñeneen man visé na yóbbu ko eBay yóbbu ko Amazon di jaay cinquante mille pièces chaque jour. yow minimum un million cinq yàlla xam na galo xam na. góor góor amul génération rek la donc minimum 1 million 500 ku leen ko suñ jaayee 1 million man am na kuy am 100 dafa am gis nga nit da ngay tabe ñi jiñ mais am na ñuy gaare oto 100 million mënuñoo def ci man damay wuti maye gis nga nga am ba pare jotoo ku tabe loolu sédd nit ñi seen wërsëg. mais man mun naa wuti 500000 juste pour maye du ma ko wuti pour denc dama koy wuti pour maye suma compte banque procédure la pour su ma waree fayee ko xaalis bu bari mais suma compte banque mooy jox nit ñi te yàlla tax yàlla jox donc li may def ci Pape Diouf tey la benn yoon mais am naa 203 xale yu may dundal ci ànd laa bëri man damay jaay ba mu woon laaj ko galo moom xam na ma wala DJ Yves fréquente leen ma dëgg-dëgg. damay jaay ba ngoon bay jël liste bi ñan laa war a mu jeex quoi mais lu ko jar donc ak am xaalis du benn mais loolu maa ko jëlee ci Baye Niass waa ji daf ko ne kaay ñu ugg compte banque nga am intérêt mu ne ko am naa conte banque bu ko mooy loo am jox ko yàlla loo ñàkk jox ko yàlla fu mu nar a métier nga war maa ci kaw laa loolu mooy suma secret secret du dara lu mooy tabeeg joxe joxe bi nag am na ci loo xam ne yàlla tax ma di ko def am loo xam ne su ma bopp tax lii may def ci part bi pour su ma bopp tax man ne nekk sedd su ma xol su ma bopp nekk ci algorithme bi bi moom yow yaa ko dafa am 1 million 500 moom ko ci ay table non fan yii moom wax dëgg yàlla yaa nekk ci la buzz nga jëndee wiyee tamit ñàkk mais wa war na mag ak rakk bu ñu ànd rakk war na mag war na mën a jox rakk buzz Pape Diop jox ma bës devoir am la moom mais jamono bii ku ma ñëw sa soirée ñu ngi fees parce que ci man la dama amoon tuuti bës ma dem kaso mu gën a yokk est ce ma delluwaat. ëpp naa dem suba laay signé ji xam nga lu ci gën a doy waar. <laughs> suba laay signé ji mën naa dem le juge bi dama toogal. est ce que doo préféré yow suba wóorul. <laughs> d' accord yàlla si nab de Nami. mu ñoo gis nga nga nekk ci. mu mel ne da nga doon jënd oto man daal xaw ma nu mu demee noonu mais gis naa ko ci na bu mu. non non romb débiteur yomb na lakkaloo jëfe lakkaloo wuñ den doon romb rek. ah non da ngaa dugg man gis naa la nga dugg. mënoo naan yaa ngi yaa ngi yaa ngi fay. en fait oto laa bëggoon a jëndi. oustaz Mouhamed Mbaye xam ne man dama xër mu yóbbu ma ci oto huit cent dix millions. yooyu yooyu bi gën a yomb cinquante quatre millions. léegi jënd dama am njëgam man oto 2 millions laa bëggoon bu xottu boo xam ne fu ma daw ngeen puus ma. moo jënd ko de wala jënd ko. non moom xamoo ci dara. moom nee na jënd ko ko. yoonam la bi ah, leen tànk yi. mais sa copain. Euh, muy euh, ngi ñëw moom tamit nee nañ. soo yéexee mu ñëw. Macky Sall président Macky Sall daf ko may càkk càkk buy ma cent xaw ma deux cent millions loolu tamit bi nga ko gisee. non Macky Sall amalu njëriñ Californie. may ko oto boobu kon. amalu ko benn njëriñ. kon loolu ay rumeur la. jëriñu ko dara Macky Sall amalul Kaliphone njëriñ li ko Kaliphone sonale bu ko sonale woon waaye ndokk yàlla Kali Kali faale wu ko xaaru ko defar na ndégam te Macky fekkewu ko jabaram fekkewu ko fekkewu ko hmm. xarit baa ngi di ñëw léegi mu ñëw lan la wax pour su xawaara bi nii. non lii moom lii moom lii moom père du ko bañ sama gisee moom dina bàyyi am. danañ ko xale xale ma jàpp. saa yi daa ko ragal xam nga lu ma ciy bañ. waaw rang ci douche bi laa bañ da ngay rang a toog. voilà ma nit ki la doon dundee prison. foofu foofu foofu da ngay rang douche bi ko miin rek. <laughs> waaw biir bi nante ni kur delluwaat ma ne ko mooy jàmm ma toog. ku dem si néew. sama jërëjëf.